sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey aouzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala sayyidi almursalin wa taabiin wala hawla wala quwata illa billahi alaliyu alazim xasbunallahu wa nixmal wakiil nixmal mawla wa nixmal nasir asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp mbokki daaira bi nuyu julit di nuyoobu sell di nuyoobu lislaam di joxe wàcciwaay wu nekk wàcciwaay yi gën a kawe ci wàcciwaay yi ci kilifa yi fi teew yépp muy kilifa yoo xam te ni kilifa yu tedd lañ kilifa yoo xam te ni seenam doxin rafet na ci yoon wii ñu nekk muy yoonu murit waaye rawatina ci daayira bii ñu bokk muy daayira safinatul amaan kon ginnaaw sunu nuyoo mu mel ni comme niñ ko baaxoo defee mooy di daje daje yoo xam ni dañ ciy fàttaliku yàlla ak ab yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam waaye di ci fàttaliku sunu mat ñu baax ñi fi nekkan di ay nitu yàlla yoo xam te ni sunu borom moo leen teral màggal leen barke seen dund ñu nekk fi ba jóge fi te liñ fi nekkee woon lépp aju ci liggéeyal yàlla ak yonent bu tedd bi sallallahu wa sallam mu mel ni kon jotaay la boo xam te ni jotaay yëpp yërmande la ni ko boroom xam-xam yi waxee ne fu mbooloom jullit daje di fàttali konte di yeetante ci gaa yu baax yi fi nekkan suñu boom dafay wàcce yërmandeem ci seen biir kon ñuy rafet njot ne jotaay bii bokk na ci jotaay yi yërmande yi ñuy ñaan suñu borom defal ñu ko mu bokk ci jotaayu yu yi bokk ci jotaay yi nga xam te ni jaamu yàlla yi gën a kawe te suñu borom nangu ko ëllëg yam am ci lay bokk. li ñuy fàttaliku nag du dara lu dut li nga xam ni moom la suñu borom santaane waaye wax na yéen jullit ñi di leen te ci seen biir ndax fàttaliku kat fàttaliku kat lu leen di jariñ la. wa zakir fa inna zikra tanfaul mumin wa maa xalaxtul jinna wala insa illaa li yaxbuduun kon li ñuy fàttaliku dafay mel ni dafay jëm ci li tax suñu boom bind ñu muy jaamu yàlla te sellal ko ndax suñu boom dafa wax ne bindu dul nit ak jinne ngir ñu jaamu ko kon ñuy fàttaliku ci jaamu yàlla boobu suñu delloo ci waxi suñu borom subhaanahu wa la muy wax ne innal insaana la fi xusr illa alladina amanu wa xamilu saalihat wa tawaasaw bil xaq wa tawaasaw bi sabr mu mel ni suñ borom dafa def doomu aadama bu ne ak perte nekk ci kanamam moo waat ci jamono moom suñ borom wala mu waat ci temps wala ci takkusaan moom suñu borom ne doomu aadama yëpp ñu ngi ci pertaange waaye nag pertange googu lan moo la ciy génne mu ne illal lazina amanu wa hamilu saalihaati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabri ñi génn ci pertange ji mooy ñi nga xamee ne dañoo ragal yàlla gëm yàlla waaye di jëf-jëf ju baax kon lii tax nit texe ëllëg texe ci àdduna mooy gëm yàlla ginnaaw boo gëmee yàlla nag nga jëf-jëf ju baax waaye loolu lu doy de suñu borom ne ni ngeen di dénkante dëgg foo leen di toll muy dénkante dëgg te dëgg moom suñu borom rek moo moom alxaqu min rabbikum waaye nag loolu yemul ci loolu mooy ngeen di dénkante muñ ndax muñkat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne asabru nisful iman muñkat mooy genn wàllu diine kon day mel ni loolu tënk na lépp ci li nga xam ne moom na suñu borom sant jaam yi moo ñu jaamu ko te ak jëf waaye lan mooy gëm yàlla ndax nit ki xam na ni gëm yàlla ci boppam mooy lan ndax xam na lan mooy jëf jëf ju baax ak ndax xam na lan mooy dénkante dëgg ak ak muñ kon loolu muy lu am solo mu mel ni nag Sëriñ Tuuba radiyallahu anhu dafa liggéeyal suñu borom subhaanahu tabaaraka wa taala ba jóge fii liggéey bu kawe liggéey bu sell liggéey boo xam ni dafa wax ne moom dafa ñëw ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi mu wax ne nag moom aw yoonam mu yoonu murit wii ñu xam yoon la woo xam ni yoon wu yaatu la muy yoon woo xam ni képp ku nam ma jëm ci yàlla rek dangay dugg ci biir yoon wi ndax yaatal gi mu yaatal yoon yi moo taxoon bañ ko laajee na ko ñan ñoo bokk ci sa waa kër daf leen a wax na leen képp koo xam te ni da ngeen leen gis ñuy tudd baatub laa ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi waa kër lañ mu wax nañ ne awalu ma awjabahu rahmaanu xattaan alal mukallafil iman summata mahrifatu ma yuslihu bi faraidal ayni jamihan fanta bi mu mel ni moom ci jëm ba ma dafa wax ne war na ci bépp mukallaf mu fexe xam lu lan mooy gëm yàlla bu xamee lan mooy gëm yàlla fexe xam nan lay jëfee ay farataam mooy woor aji màkka asaka xeet yooyu yëpp bu nekk nga xam la ca suñu boom digle ak naka lañ koy defee loolu nag lan mooy tax nit ki xam ko mooy xam-xam moom faawu nit ki dafay jànge ba xam loolu dëgg-dëgg xam ngi doo di ko mën a jëfe moo tax sëriñ Touba daan soññee ci xam-xam sàkko xam-xam lu baree bari di ko dénkaane nag fu mu toll ndax yonente bi sallallahu alayhi wa bi mu fi jógee ay ati at yu bari weer ci ginnaawam bi Serigne Touba ñëwee dafa wax ne moom day yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi moo tax mu ne lil Moustapha nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu kon indiwut lu bees loo xam te ni amu fi woon wala indiwut loo xam te ni dafa génn diine déedéet moom léppam diine islaam la kon yoonu murit Sëriñ Tuubaa mi ngi ko tënk ci lii mooy imaan ak islaam ak ihsaan génnul loolu kon yoonu murit ñett yooyu rek la ko Sëriñ tënk te wax na it ne laa tastaxilu an il huda wa bil xulumi staxilu fastaxilu bil xefsi wa tilaawa wajtanibu majalisa saxaawa wala asimu man la yasaalu xaabida li rabbihi illaa hudaahu xaaida dénkaane na ci xam-xam wax na yéen ndaw ñi dénk naa leen na ngeen farlu ci ak njub na ngeen farlu ci ak njub ak saako xam-xam mu mel ni ak njub dafa nekk lu am solo rawatina ci njaw ci ndaw ñi ndax boo xoolee jamono ji fii mu toll lii am lépp ngay dem ci kaso yi muy fees ak ay ndaw lu lépp li ko waral lu dara lu dul ñàkk a njub kon ak jub bokk na ci li ëpp solo ci ndaw mi mu fexee cee daw jëm ci ak njub kon Sëriñ Tuubaa dénkaane ne kon na ngeen sax ci ak njub ndax ak njub mooy li nga xam te ni ku ci jaar di nga mucc tey di nga mucc ëllëg mu wax ne na ngeen sax ci kon di sàkku xam-xam foo leen toll farlu ci sàkku xam-xam farlu ci mokkal waaye na ngeen farlu ci wattandiku bépp jotaay boo xam ne jotaay way texee di la wattani bu ma jaay sa saxaar jotaay kon boo xam te ni jullit dafay teew mu nekk jotaay boo xam te ni fàttaliku fa yàlla fàttaliku wu fa yónnante bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaliku fa lenn ci lu baax na xam ne jotaay boobu jotaay woy texee di la kon sëriñ bi bu mu la teree loolu waaye digle la nga sàkk xam-xam digle la nga jub lim lay digal mooy na nga taxoo kon ñi nga xam te ni dañoo ragal yàlla tey jaamu yàlla boo taxaw ak ñoom nag fan lañ lay yóbbu dañ lay womat yóbbale ci sa sa borom subhaanahu tabaaraka wa taala kon taxoo ak nit ku ragal yàlla ngir mu lay xëcc jëmale ci boppam waaye daf lay xëcc jëmale ci yàlla moo tax Sëriñ Tuubaa dénkaane loolu muy lu am solo mu dénk it waxambaane yi ci wàllu xam-xam wax na leen na leen. yaa maxsara subbaani in xiftum xajal faxaddimu taxalluman xalaahama yéen waxambaane yi boo leen bañee gàcce ci àdduna bañ gàcce ëllëg alaaxira na ngeen fexe ba na ngeen jiital xam lu njëkk ngeen jëf kon mu mel ni yoonu Serigne Touba mu yoonu murit nii ñu koy xamee ci yenn ci nit ñi muy mel ni yoon woo xam ni yoonu tañaxu la bu ñu nee tañaxu nag mooy day mel ni ku jóg rekk day dal di jëfee ko nu mu ko neexee déedéet sëñ Tuubaa bëggeewu ko noonu te soseewu ko noonu moom yoonam daf ko sos ci alxilmu wal xamalu mooy xam-xam ak jëfe xam-xam loolu nag ñëpp dañ ko war a gën a bàyyi xel te jóg di ci dox mooy xam te di jëfe moo tax sëriñ Tuubaa ci ay bindam yu baree bari da ngay dégg muy soññe ci xam-xam di soññe ci jëf-jëf ju baax di soññe ci sellal jëf moo tax bi mu dénkee waxambaane ne leen dénk ndaw ñi dénk waxambaane ne leen na ngeen fexe ba na ngeen di xam lu njëkk ngeen di jëf ndax loolu mooy tax ngeen am li ngeen bëgg ci àdduna am li ngeen bëgg ci àllaaxira alxilm wal xamalu jawharaani li xayri ya daarayni yajlubaani sëñ Tuubaa dafa wax ne nangeen xam ne xam-xam ak jëfe xam-xam bi dafa mel ni ay wurus yu sell lañ ci àdduna waaye wurus yu sell yooyu kat mooy xëcc moo lay xëcc jëmale ci nga am texe ci àdduna am texe ci àllaaxira kon murit bu ne war naa fexe ba sax ci sakku xam-xam ak di jëfe xam-xam ndax moom Sëriñ Tuubaa wax na ne it xam rek doyut xam aw jumtuwaay la jumtuwaay nag boo ko amee da nga cay jëf mu door a am njariñ moo tax mu ne xam-xam ak jëfe xam-xam waaye mu mel ni dafa waxaat ne xam-xam ak jëfe xam-xam rek doyut wa fiihi majtahid wa fi tasfiya min kulli aafatin wa fi tanxiya moo tax mu ne ginnaaw boo amee xam-xam fexe di ko jëfe waaye na fexe sellal ko kon sellal gi lu am solo la moo tax mu ne na nga farlu ci sellal waaye fexe ba lépp loo xam ne dafa yàqal rek lu jëmul ci yàlla nga wattandik ko kon Sëriñ Tuubaa dafa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam zahiran wa baatinan ku doon na yonente bi sallallahu alayhi wasallam nag zahiran wa baatinan dellu santaane ne na ngeen di jëf waaye ci ginnaaw ngeen xam ba pare moo tax mu ne wa fexlu say in la ay yaxlama ma xakama fiihi mutlaqan rabb sama jëf bépp mbir lu mu mën di doon na njëkk yow nga xam li ngay jëf ba pare xam lan moo cay àtte ba xam la ca sunu boom bëgg ak la ca sunu boom bañ kon loolu ndaw yëpp war nañ ko gën a bàyyi xel gën di dox di ca jëm ndax Serigne Touba kat képp ko ànd ak moom war ngaa gën a xam sa bopp war ngaa gën a xam ki nga àndal mooy gan ndax koo xam te nii ba nit ñëpp jóge di xëccoo yàlla di xëccoo liggéeyal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom dafa wax ne moom yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ci boppam moo ko tànn ngir mu liggéeyal ko raama rasulullahi min kew kaw ni xadimahu abdullahi kon kooku wuute nag jaam yi nga xam dañ daan jóg nitu yàlla yi nga xam dañ daan jóg ngir liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wa ndax ki ñi liggéeyloo ak ki sàkku ngir ñu liggéeyloo ko wuute nañ mu dellu waxaat ne karaamati xattu di sama bindu loxo yii de mooy sama karaama donte li mu def lépp ci àdduna ci ay kiimaan waaye lépp dafa woote na karaamati xatuweel yi kon war nañu gën a fonk téereem yii mu bind muy téere xam-xam ak téereem yii muy bind muy xasida yi ñu gën koo fonk te gën di ko jàng ndax ku toll ni Sëriñ Tuubaa jamono jam tollal buñ doon xool ci nit ku saaxir da nga naan am jot sax bind benn bu kayit wunta am jot bind benn kayit waaye ca jamono ja la muy xat-xat la muy tiis tiis mu boole ko bind ay téere yoo xam ne daf koo dénk murit yi sàkku ci ñoom nag ñu jàng ko kon nag bépp murit war ngaa gën a farlu ci sàkku xam-xam sa kemtalaay kàttan fexe ba lépp loo xam ne yàlla da koo santaane nga jox ci sa kemtalaay kàttan ngir xam lu jiga te loolu Serigne Touba nee na warlu na ko murid yi te bindal na leen ko bàyyi na leen ko fi kon nag maa ngi soññ sama bopp di soññ jullit yëpp rawatina mbokki taalibe yi ñu gën a sax ci sakku xam-xam waaye gën a sax di jëf tey sellal jëf yi ndax kat waxoon na ne képp koo xam te nii dangaa xam te jëfewoo ko yaa ngi mel ni mbaam moo xam dangaa yenu ay téere te yàlla sunu borom subhaana tabaaraka wa taala ba muy wax ci alxuraan di wax ak yahuud yi di leen wax seen melokaan yi ñu melo ndax amoon nañu xam-xam waaye jëfewuñ ko daf leen waxoon ne masalul lazina xumilu tawreet summa lam yaxmiluha ka masali ximeeri yaxmilu asfara daf leen a misaal ne ñoom ñi ngi mel ni seen xam-xam boobu ñi ngi mel ni ay mbaam yoo xam te nii dañoo sëf ay téere mooy xam-xam boobu du leen jariñ dara lu dul coono la leen di dikkal kon loolu nañ ci bàyyi xam xel bu baax fexe di xam xam gu wér buñ jógee ci xam gi du doy ñu jëfe ko jëf gu wér buñ jógee ci jëf gi du doy ñu sellal ko sellal gu wër di ñaan suñu borom mu nangul ñu suñ jëf yooyu ndax yàlla daraam neenul neenalu ko fa may yaxmal misxaala zarratin xayra yara wa may mal misxaala zarratin sarra yara képp koo xam te ne ngaa jëf benn jëf lu mu néew néew ci aw yiw suñu borom nee na ëllëg amal xiyaam dina la ko jox fay la ko fay gu mat sëkk képp ku jëf benn jëf ci jëfu safaan lu mu néew néew suñu borom nee na ëllëg amal xiyaam dina la ko delloo kon loolu lu jara wattandiku la ci jëf jëf joo xam suñu borom nanguwu ko ndax Sëriñ Tuubaa dañuy wax ne léppam xam-xam la ak jëfe ndax ci fan yu néew ci ginnaaw am naa génn kilifa ci waa ahlu Mbàkke mu may nettali ci Sëriñ tubaa dénkaane yi mu daan dénk mbokki taalibe yi ci wàllu xam-xam di leen soññ ci ak ragal yàlla di leen soññ ci ak jaam yàlla mu mel ni daana ko def am na jamono joo xam ne mu toog di ko def bañ fa jógee am kenn ku toogoon ca jataay ba daa di dajeeg sëriñ Mbay Jaxate daa di wax ne kat bég na ci kat waxtaan wi nga xam te ni moom la sëñ Tuubaa doon waxtaan ndaxte waxtaan wi kat dafa dugg ci xolom biñ ko waxee loolu fekk amoon na aw naaru góor wu mag wu yore woon mu ne ko nag naaru góor mii laa bëgg nga jël ko joxal ma ko sëriñ Touba siyaareel ma ko sëriñ Mbay Jaxate bi mu demee jox ko sëriñ Touba wax nañ ne sëriñ Touba daf ko wax ne ko wool ma ko kooku mu ñëw ma jox ko lu gën lii mu ma jox ba mu ñëwee ci ak njàngaleem daf ko tombal ñetti tomb wax ko ne ko ñetti tomb yii ma la tombal de tomb bu njëkk bi mooy li mat a def tomb bu ñaareel bi mooy li matut a def tomb ñetteel bi mooy li ëpp def daan ne ko tomb bu njëkk bii muy tomb bi nga xam te ni mooy li mat a def na nga xam ne mooy ak jaamu yàlla sa borom te di ko sellal ndax kat jaamu yàlla googee mooy tax suñu borom musal la ci sawara mooy tax suñu borom may la àjjana mu ne ko tombum ñaareel bii nga xam ne mooy li matut a def na nga xam ne mooy am fo ndax am fo du la may dara waaye du la xañ dara mu ne ko tombum ñetteel bi mu ne ko ñetteel bii na xam ne mooy li ëpp a def li ëpp a def nag mooy ak moy yàlla wax na ne Sëriñ Tuubaa ba mu koy wax dafa tibb tibbum ñetteel bi sànni ko ndax bañ gi mu bañ lu aju ci ak mooy yàlla daan ne ko tomb ñetteel bi mooy li ëpp a def te mooy ak moy yàlla bu la ko dara jaral ci àdduna kon nag murit yi fii lañu war a nekk mooy xam-xam gu wér waaye jëfe-jëfe gu wér ba pare di ko sellal seen kéemtulaay kàttan sellal gi nag mooy li mu waxoon rek ne lépp looy jëf na yàlla rek tax booy jëf na mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak sa borom subhaana tabaaraka wa taala ihsaanukum ma ayyuha sibyaanu liman lahul arwaahu wal abdaanu an taxbudullaaha ka annakum ma tarawnahu fattabihu ma sara in lam takunu fa xad raaytumuhu fa huwa yara kulla faraaxibu nee na booy jëf ci ak sellal na mel ni li ngay jëf suñu borom mi ngi taxaw mi ngi tiim di gis li ngay jëf bu fekkee nag amoo pas-pas boobu pas-pasum ñaareel ba mooy na wóor ne la sa borom moom boo ko gisutit mi ngi lay gis fa huwa yara kulla faraaxibu kon nag na nga góor góorgóorlu ci lépp luy jëf mu nekk jëf ju sell loolu it moom la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jullit yëpp daan ko dénk saxaaba yi mooy seeni jëf ñu fexe di ko sellal ndax imaan ak islaam ak ihsaan faw ñooy ànd te imaan mooy xam islaam mooy jëfe ihsaan nag mooy yeggale jëf yëpp te mooy ak sellal ndax jëf ju amul sellal suñu borom du ko nangu kon dafay mel ni ci loolee la Sëriñ Tuubaa tënk yoonu murit ci la tënk ñëpp ñu aju ci moom mooy jaamu yàlla te di ko sellal kon dafay mel ni dañu doon barkeelu ci ay kàddu yu gàtt xañ na sax am na suñu kilifa yu fi nekk ëpp ñu xam-xam lool waaye ñu joxoon ñu ndigal rek te ndigal laa tax tafaalu sayaan bi xayri isni fal isni sartum fi xubóoli san mel ni murit moom lépp lu muy dox rek dafa war a aju ci kaw ndigal kon ñu ngi wàcce kàddu yi di ñaanal ñëpp jàmm ñaan suñu boom dool ñu yërmande dolli ñu ak njéggalam ci barkeb yonent bi salaay salaam ci barkeb seexuna ahmadul xadim te lépp luñ koy nangul luñ koy liggéeyal mu nangul ñu ko ca nangu ya gën a kawe wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene ko fas yéene liggéey